bisimilah. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah euh, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen baal àq te di leen baal àq di sant yàlla bu baax di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqima siraatal lazina an'amta alayhim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 mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen baalu àq te di leen baalu àq di sant yàlla te di leen wax tey waxtaanu tey bi mu ngi jëm ci li nga xam ne mooy wàllu lii àddina bi nekk tey lu jëm ci wàllu téléphone yi nga xam ni moom la ñuy utiliser. te mu nekk ak ñun mu am loo xam ne lu négatif la am loo xam ne lu positif la waaye nit ñi nag toll nañ ci foo xam ne xàmmeetuñ ci li négatif ak li positif te àddina boo gisee yàlla mu bind doomu aadama bind yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni yonent bi lu ci dayoo ci mbaax yàlla bind saytaane mu toll noonu ci mbon ci dayo daye bi yonent yàlla Muhammad salaa salaam am ci yàlla ci mbaax noonu la seytaane amee daye wu tool noonu ci mbon ñu war koo xam xammee ku baax ci lépp loo xam ne mu ngi ci dugg jëm ci pour yàqal ñu ak li nga xam ne mu ngi ci jëm gàllankoor ci suñ diggante yàlla ci suñ diggante suñ bopp loolu tax na nag tey ñu ne dañ waxtaanee li nga xam ne mooy wàllu téléphone yi nga xam ne tey mu ngi empêché nit ñi ci seen ay communication ci seen ay éducation ci seen ay reflexion mm-hmm. ci seen ay intelli seen wàllu intelligence ci seen wàllu li nga xam ne mooy seen wàllu mm-hmm. métier ak seen wàllu li nga xam ne mooy environnement bi nga xam ne ci lañ nekk ndax nit ki nga xam ne tey yàlla bind na ko mu nekk koo xam ne yàlla daf ko may intelligence ci xel xelam dafa laaj waxtu nekk muy wéet walla muy dal pour mën a di liggéey ci loo xam ne dafay wàll yokku xelam pour mu mën a jëriñ moment bi mu nekk ak population bi mu nekk ak environnement bi mu nekk waaye léegi da ngay gis soo demee ci famille yi da gis koo xam ne day yor njabootam éducation bi nga xam ne doom moo tax damay wax ne dëmm dëmm baatu dëmm bi ñuy wax actuellement dëmm bi gën a mën a lekke dëmm bi gën a mën a lekke dëmm bi gën a mën a rayaate mooy téléphone portable yi ñu yor boobu téléphone portable yi moo gën a bon ci doomu aadama moo gën a bon ci nit ci bu fekkee xamoo nuñ ko jëfandikoo yi am na partie boo xam ne baax na ci lu bari loo xamoon loo umpale woon ci àddina wala lu bari loo xam ne amoo ko woon ci àddina wala xamoo ko woon ci àddina dimbale na la ba nga mën koo xam mm-hmm. waaye xam nga nga ko xam lan la la jariñ foofu la njariñ li nekk yi waaye nga xool lu négatif li ci nekk nga xam ne mu ngi koy yàqal ñenn yi nga xam ne xëy na ñoom amuñu accès waruñu woon am accès ci portable wala buñ ci amee accès lu tuuti lañ ci waroon a jëfandikoo tegaat ko tey ñëpp jël nañ seen àddina jël nañ seen temps jël nañ seen lépp jox ko téléphone léegi dingay gis nit koo xam ne dafay yor doom doom ji dootul bëgg ti jege baayam dootul bëgg a jege yaayam mm-hmm. ndax téléphone su jëlee téléphone ma nga bokk ci ci benn ruq buggul yaayam xam ne yor na téléphone bi buggul baayam xam ne yor na téléphone bi ma nga ca téléphone ba léegi affection bi doon am ci diggante yaay ak baay kooku xale boobu ñàkk na ko bi nekkoon ci yaay nga xam ne doom soo xoolee xam ne pour yàlla wan na la diggante doom ak yaay ak diggante doom ak baay am na sirru ma war a yàlla bind benn mala bu ñuy wax mbonaat mbonaat moomu yàlla daf ko bind ngir mu wane ne sirru bi nekk ci wéejur mënaat yàlla daf ko bind mu mën a nampal doomam lekk jox doomam mu lekk jox doomam mu naan ci xool ñoom ñaar xoolante bi ñuy xoolante rek sirru mënaat dafay nampal doom ci xoolante mu bindaat beneen mala beneen ba beneen beneen espèce bu ñuy wax xar-xar nga xam ne xar-xar ci ñi bàyyi te nekk ca àll ba ñoo ko xam mooy may benn gunóor la boo xam ne day xool gerte di ko muucu di xool gerte di ko muucu di xool gerte di ko muucu ba gerte ga diw ga jeex takk te du laal gerte gi nga gis kii mën na dugal kii mën na génne pour yàlla wan la ne rek xoolante ak jàkkaarloo ak <laughs> janoo dafa am sirru am na ci ñoo xam ne tey seen bët daf lay rey daf lay lor am ñoo xam ne seen làmmiñ daf lay lor nun la làmmiñu waajur ak bëtu waajur di jëriñee doom ndax doom tey bu jàkkaarlee waajuram communication bi ñuy communiquer ak jàkkaarle bi ñuy jàkkaarle te ba fa bañ sax ba yàlla ci boppam dafa wax sax ne maanaa maanaam xool gi ngay xool sa waajur rek yàlla daf la ci bindal tiyaabu kon nga gis jàkkarle ak janoo ak xool waajur li ci nekk ci secret kon doom aadama bi war na bàyyi xel njabootam moo xam ku góor la moo xam ku jigéen la waaye doom ji tamit war na bàyyi xel waajuram ndax doom ñi léegi ñëpp a conscient ni ngay yeddee waajur wala di ko fàttalee waajur noonu ngay yeddee doom di ko ko fàttalee parce que li ngay wax bàyyi mu koy comprendre noonu la ko doom di comprendre te moment bi ñu ñooy toll même niveau léegi amatul différence différence d'âge la waaye léegi amatul différence d'intelligence wala communication wala information doom yi ak waajur yi ñoo tolloo même information wala sax doom yi au contraire plus que ils sont plus informés que les les parents les les les enfants sont plus informés que les parents parce que li ñuy communiquer ak li ñuy recevoir ci ay message xëy na parents yi amuñu temps boobu di ko recevoir ci ay messages kon il est temps ñu rangé wu waat ñu wu waat ci suñu ay position suñu ay moment ñu bàyyi ko xel parce que nit ki amut lu dul jamonoom nit ki amul lu dul temps téléphone soo koy jëfandikoo dafa am waxtu wuñ ko war a jëfandikoo dañoo war a conscient waruñu xaar ay tubaab dañuy conscientiser waruñu xaar ay tubaab dañuy recadrer waat ñu xaar ay tubaab dañuy yedd wala dañuy wax naka la ñu utiliser ay appareil parce que gënuñ ñu ko xam gënuñ ñoo nekk ay nit il est temps ñu ra recadre parce que téléphone bi ñu koy jëfandikoo léegi na te inadmissible kenn mënul la wax sax léegi téléphone naka lañ koy jëfandikoo léegi dangay ngay way waajur woo xam ne tey day nekk ci kër du bëgg jabaram jege ko parce que lan am na téléphone am bu mu yor boo xam ne ci lay wax ak ay ñimu ci ay mbiri sekkereem bu guut ku ko jege jabar ji da ngay gis du bëgg jëkkër ji jege ko parce que téléphone bi ci lay nekk di wax ay mbiri sekkereem donc kon séparation bi am ci entre famille yi léegi seen téléphone bi moo ko def woon tënk mooy seytaane bi téléphone bu mooy jinne ji téléphone bu mooy dëmm bi rey nit ñi léegi nañ ko bàyyi xel waaye téléphone bi tamit mooy waliyu bi bi def bi dimbalaate de téléphone bi tamit mooy yonent bi bi bi ma wax yu ki de mooy téléphone bi tamit mooy indi xabaar de loolu bay ba ñu ko xel de donc kon mu ngi des ci nit ki naka lay xamee naka lay jëfandikoo téléphone bi mm-hmm. mën na nekk yonent bi mën na nekk seytaane bi ci moment bi nga ko utiliser foofu lay séparé woo soo bëggee mu nekk yonent bi mën nga ko ubbi mu nekk alquran nga nga teg ko teg di déglu alquran wala nga jàng ci alquran wala mu am indi la waxtu julli wala mu fàttali la waxtu julli wala nga wax ci xabaar wala nga yónnee ci message wala nga wax ci ak loo xam ne luy jariñ la boobaa dana nekk ci côté l'islam dana ko nekk ci côté njariñ waaye bu nekkee ci safaan ba rek cela veut dire que indi na seytaane indi na ñàkk njariñ ci foofu laay waxee ci wàttu waa seytaane ci wàllu yonent bi kon téléphone dafa baax ñu xam ko hmm. da nga gis ñaar ñoo xam ne dinañ nekk ba jot jotaay jeex bu njëkk ba da nga daan gis nit da daan am soxla ne xaaral ma dem ci diw yàlla may ne ko xel yàlla may ne ko xalaat yàlla may na ko xam-xam yàlla may ne ko expérience nga dem ci moom toog moom nga ne ko man de damaa am soxla sàngam damaa am problème nanga dama bëgg nga dimbala ma ci nga conseiller ma ci léegi amatut amatut xaaral ma dem si sama nijaay laaj ko ndigal amatul xaaral ma dem ci sama grand frère waxtaan ceeg moom damaa bëgg jabar xaaral ma dem si sama nijaay wax ak moom amatul parce que lan cause de les téléphones nañ bàyyi xel téléphone yi nañ xool waxtu wi nga xamee ne moom la ñuy jëfandikoo téléphone yi nañ xool ni ñuy jëfandikoo téléphone yi léegi nag mu def ñi nga xam ne yàlla def leen dénk ñu nekk ay nit ñi nga xam ne ñoo tax yàlla bàyyi fi suuf parce que alquran dafa wax ci ne dafa wax ne lu su fekkoon bu du woon lenn nit ñi ci ñenn ñi yàlla dina tukkal àddina ci lu gën a gaaw xef ak xippi lawlaa lawlaa lawlaa lawlaa difaa difaa on naasa baadoom li baadin la fasadati la fasadatil ardi yàlla nee na bu dul woon su fekkee juumoo yàlla nee na bu dul woon ñenn nit ñi ci ñenn ñi ma tukkal àddina ci lu gën a gaaw xef xef ak bi kon nit ñi nañ bàyyi xel li nga xam ne moom mooy téléphone yi nañ bàyyi xel li nga xam ne mooy téléphone yi da gis nag nit koo xam ne jaamukati yàlla la avant portable di am da nga daan gis daf daan tëju daf daan tëju gis nga li may wax nii ba ci ñii nga xam ne ñu ngi toog ak man jàkkaarloo ak man sax ne ni mënatu munuñu sax concentré wu sax déglu ma ci man sama wax bii may wax ñu ngi ci téléphone yi <laughs> pour wan leen rek téléphone ni mu bone concentration bi war nga xam ne man su may communiquer nga nga nekk ak man soo concentré wu sax man si sama jëm bopp sax danga may déconcentré pour wan leen njëriñu téléphone man du man je suis trop parce que su may wax li may wax dama koy wax mu nekk comme man ni ma koy dundee nga nekk jaamukati yàlla nga daan toog avant ngay am téléphone avant ngay xam téléphone nga daan toog yor sa kurus di wirt di jaamu yàlla tey nga xool bi nga xam ne nga xam ne yàlla dafa am secret bu nekk ci jokkoo jokkoo dafa am waxtu woo xam ne soo nekkee sa néeg jël sa kurus teg sa néeg dagg mbooleem mbindeef yi soo toogee ci biir néeg bi soo liggéeyul benn tur sax yaa ngi jokkoo yàlla waxantuma naa ne nga yor ta tur di ko liggéey moom léegi nag yow nga nga beru nit ñi tëj sa néeg duggal sa néeg sa biir sa biir néeg sa téléphone nga yaakaar na dagg nga nit ñi non moo ca mbedd ma nga waroon a toog noppal sa bopp parce que yow yaa ngi xëcc ci àddina bi au lieu nga jël nit ñi sax toog ak ñoom léegi yow da ngaa daw nit ñi dem ci àddina bi jël téléphone bi dugg ak moom ci néeg bi taal téléphone bi yor sa connexion yor sa téléphone yor sa kurus na yaa ngi wirda këcam këcam këcam këcam nekk sa téléphone bi soxlawul tëju soxlawu ko parce que soxlawu ko parce que li ngay def nax sa bopp la kurus gi boo ko yoree war a wirda waxtu wi ngay wirda yaa ngi jox ko ak yàlla waxtu wi ngay jokkoo ak yàlla danga war a dagg mbindeef yi da nga war a dagg mbindeef yor sa kurus ba pare soo paree nga dem jox ko ak nit yi moo waral léegi gis nga bouddhisme bouddha yi les bouddhisme ñoom da ngay gis ñoom duñ wirde duñ def dara danañ wirde ñenn ñi dinañ wirde mais am si ñoo xam ne xam nga lu ñuy def dañuy toog na tekk toog na tekk googu ñu toog na tekk rek dañuy jokkoo ak yàlla parce que bu ku jógee ci nit ñi rek yàlla ngay dellu boo gisee nit ki bu dee ñu ne dellu na yàlla dellu na ci yaa inna lillahi wa inna ilayhi yàlla la jógee woon ci yàlla lañuy la ñuy dellu óor ñi rek yàlla ngay dellu loolu mu nekkoon ña xam kon óor boo kiccee doomu aadama yi tëj sa néeg rek dellu nga ci yàlla ci àddina bii nga nekk nii balaa ngay dee dem àllaaxira kon soo tëjee sa néeg beru mbindéef bi dellu nga ci yàlla léegi dellu boobu ngay dellu ci yàlla na nga foog sa téléphone dugg moom ci biir néeg aywa ban njëriñ la amati yaa ngi jokkoo ak àddina bi léegi waaye au lieu de télé nga jokkoo ak nit ñi si kër gi léegi jokkootoo nit ñi si kër gi waaye nit ñi ci àddina bi léegi nga te fàtte nga yàlla mi nga xam ne moo taxoon nga fatu fàtte nga yàlla mi nga xam ne moo taxoon nga tëkkul kon il est temps xam ne ñoom ñoo nekk di dugg xalwa ñi nga xam ne ñoo nekk di di di di di def ay riyaada ñi nga xam ne ñoo nekk yor seen kurus di laazim ñi nga xam ne ñoo nekk yor seen kurus di wasifa nañ teg seen téléphone yi te bàyyi xel ne waxtu wi nga xamee ne yaa ngi ko yor téléphone bi di ko wirda kite nga dagg nga jokkoo bi nga doon jokkoo ak yàlla ci waxtu wi nga xamee ne yaa ngi nekkoon di wirda mm-hmm. nga seet nga sa téléphone nga war a wirda nga teg téléphone bi téye sa kurus mus nga def ko silencier wala nga fay ko teg ko à côté nga yor sa kurus nga wirda ba pare après nga jëlaat téléphone bi nga yor ko commencé wirda saa nga teg téléphone bi nga xool ñoom ñaar ñaari ñaari xaal yi ba xam ndax dina nekk benn du nekk benn parce que waxtu wi ngay ko ak yàlla dong bokk ak waxtu wi ngay jox ko yàlla ak mbindéef yi kon téléphone bi li ñuy yàqal nañ ko bàyyi xel addina bii nag dafa am ay nit ñi nga xam ne tuddkati yàlla yi ñoom ñoo tax addina bi di dox boo gisee seytaane yi léegi am doole léegi nga gis ay nit yoo xam ne dañu oote woo ay ay ay nga gis ay nit ñoo xam ne dañuy yor mbooloo duñ nekk ci diine ku nekk kilifa yi di wax duñ leen faale bu leen sikk kilifa yi de kilifa yaa ngi nekk kilifa ba tey de mais jinne yi nga xam ne ay sayaatin lañ gis nga darajay nit ñi niñ toll noonu lay darajay jinne yi toll ñun ñuy faj nga xam ne ku nekk la ñuy indil ñuy faj jinne yi di faj rab yi di leen di leen dàq xam nañ nit bu ko jinne duggee bu waxee danañ xam ne ji nit moo wax wala jinne moo wax am na ñu bari tey ñu leen di attaqué naan dafa ñàkk yarak ak dafa ñàkk teggi nag dafa ñàkk kilifa dafa dëgër bopp ak nekk ci diina dafa dafa dafa topp yoonu boppam ak bu leen leen sikk de jinneyee bu leen leen sikk bu leen leen naw ay jinnee leen dugg di jëfee ci ñoom di waxee ci ñoom te ñoom ci seen jëm bopp sax nekkuñu au euh, courant de sax de ça ñoom xamuñ sax conscient yu ñu sax ci ne ñoom sax nekkuñ di jëf ñoom jinneyee jëf ci ñoom te ñoom xamuñu ko parce que man man damay damay suivre euh, actualité damay suivre internet bi damay bàyyi xel bu baax am na koo xam ne bu ko jinne duggee su ma ko xoolee jàkk rek damay xam ne kii du nit jinne la am na ci ñoo xam ne dañuy ñëw ci man dama leen di wax doome xaj ju bon ji yow man laajuma la tëjee sa gémmiñ diw laay laaj te fekk benn jëmm ji te loolu ko xamut yàlla ko ko ko xamut jinne mën koo xam jinne yi nga gis ñu bëri ñuy ootee bu leen leen sikk de ñu bari ñuy oote ay jinne lañ jinne yi ñooy woote ci seen ay làmmiñ di jëf ci seen dugg nit ñi xiir leen ñu topp leen ngeen yaakaar ne day ay ay ay saafara yi ñu leen jox ñu naan la wala ay gàllaaj yi ñu yor di ko wala ay fétis ñu yor wala ay xër yu ñu yor jinne yi ñooy dugg nit ñi ñu indi leen jiite leen parce que léegi nit ñi amatuñ kilifa bu njëkk ba man am na benn xale boo xam ne mu ngi dëkk ginnaaw raay li may wax ni taalibe yi jokk ci man ak mbokk yi taalibe yi jokk ci man li may wax xam nañ ko ta taalibe boobu jinnee ko duggoon bi mu ko duggee yaayam ñëw yaayam du gis bi mu ñëwee indil ma ko ne ma kii de sama doom dafa feebar foo xam ci àddina yóbbu naa ko ma ne ko waccee ma ko ba ma ko bàyyee ñetti fan sama kër la xale bi nekk sama kër ma réglé ko ba xale bi normal jën la ji nekk ci moom génn dem yoonam xale bi wér yaay yi ci jëmmi boppam dafa ñëw na ma may naa la xale bi ma ne ko baax na bismillah école ubbi mu yóbbu xale bi mu dem jàngi saamu tàggu ma jinn ñu ñëwaat jàppaat ko mu wëraat fu nekk mu dugg fa mënu koo mënu koo mënu koo wéral mu ñëwaat ci man dama ah wax dëgg yàlla li ma amoon ci ma amoon ci yow mosuma ko am fenn dama bëgg nga dimbali ma ne ko xalaat may ma mayoon xale dëgg mu ne ma dëgg ma ne ko lenn de danaa la ko wax su fekkee ne li ma waxoon mayeen xale bi dëgg la demal xale bi dootul feebarati li ko jàpp dana ko bàyyi ñoom xam nañ man li li li ma yirif duñ ko laal soo fekkee ne nag li may du dewul dëgg nag nga dem ak sa doom moo xam man mënu ma ci dara mënu ma may gi dëgg la ma a ko demal xale bi dootul ba 2010 ba tey xale bi mu ngi mu ngi jàngi mag la kilifa la mooy sikkar suñ daayira bi macha allah kilifa mag la tey fi mu mu ngi normal booba la gëj a feebar ba tey donc jinne yi léegi nit ñi amatuñu kilifa moo tax jinne yi dañu war olof daf koy wax naa ko du amul kilifa jinne di sa kilifa wax boobu du waxu caaxaar dafa nekk lu dëgg léegi nag jinne yooyu nag ñooy dugg nit ñi suñ la duggee woote nekk sëriñ bi tey nga dégg ñu ne sëriñ ba jigéen la ma ngay oote nit ñi toog fii nga am lu la naqari nga xam ne li masul am ci jamonoy mag ñi mag ñi bañ fi nekkee jinne yi dañu leen doon régler comme ñu ñu ñu ñuy ñuy régler dërëm waaye léegi fi mu nii koo ci koo ci a rek la nga gis ñu ne nañ ko yóbbu ci yoon koo ci bëgg laal nga dégg ñu ne nañ dem ak moom ci yoon nañ dem ci avocat ba moo tax léegi nit ñi nga ne am nañ pouvoiru régler jinne yi këpp seen bët di leen seetaat mhm. nit ñaa ngi mën a régler jinne yi ba mais engagement yee changé loolu nañ ko xam léegi ñii jigéen ñiy oote nañ leen bàyyi xel gis nga ñii dem di uyu jigéen ñi oote kenn mënut leen a wax lu tax ñu wàññeeku parce que balaa ñuy uyu ji dañ leen di dugg ba pare yóbbu leen récupérer seen xel yi léegi ñoom jinne ñooy dem di uyu ji ngeen yaakaar ne nit ñooy dem di uyu ji niñ jàppee ki niñ jàppee kiy oote noonu lañ jàppee ki uyu ji loolu lañ ko war a xam moo tax léegi waaraate bi leen di waar ak xupp gi ñu leen di xupp ak tiital gi ñu leen di tiital zéro fii am na fi benn xalifa général boo xam ne woo na fi ab jigéen yedde ko ñaata la est-ce que tax na mu wàññeeku ci ñoo xam ne miin nañ ci ñoom ne mosu ñoo mooy ndigal waxtu wuñ leen masaa wax benn wax rek wax ja jeex na kenn dootu ko diggaat ñaar yoon tey ñaata yoon lañ ñaata yoon lañ oote dañ leen a faale parce que loolu loolu war lu war naa tax nit ñi bu ñu amoon xel rek di jëfandikoo seen xel war nañoo xam ne lii du sago lii du neen mm. donc jinne yi dañoo nit nit dafa am jinne dafa am yàlla dafa bind nit bind jinne may leen pouvoir may leen ñoom ñoom am ñenn ci ñun ñu leen di gis am ñu bëri ci ñun dañ leen a umpule may leen pouvoir ñu mën a soppeeku ngelaw ba dugg sa deret dugg sa xel jëfee na waxee la te yow doo ci rendre compte noonu lañ jàppee ñeneen ñi tey ñiy oote ñëpp ay fenkat lañ de loolu wér na bu leen leen ragal a wax ay fenkat lañ ay fenkat lañ ñiy oote ngeen baal ma ci kàddu bi ay fenkat parce que jinne yee wax ci ñoom di leen oote law xiir leen ci mon jël sariya bi ñu xam ne lislaam a ngi ni ñu du mooy ko teg ko nële ba pare di oote ci turu say lislaam di woote woo ci turu diine tak diine jëm nii ñoom ñu jëm nee loolu dafa dafa xelu yow nga ne lislaam ngay oote yow nga ne diine ngay oote nga ne doo ko jëfee lenn lu jëm ci diine doo ko jëfee te doo bàyyi diine nga nit yàlla yi ngay wax si seen tur yow nit yàlla ki lii la doon def lii la doon wax ki ko fi taajale ki ko fi toogal ak nii nga ne doo ma wax ak moom <laughs> nga ne dinaa wax ci turam mais seen bi yéen ñi toog ci di wax toog ci di wax sax loolu ñàkk ñàkk xel la donc dama bëgg a wane jinne yi pouvoir bi ñu am tey ci nit ñi di leen jëfee di leen waxee noonu la ñu mën a jaar jaar ci communication léegi laa koy wax ak sama rakk ma toog gis nga communication boo gisee boo ñu naan cat cat dafa am trottoir bu muy occupé buy dugg ci nit. dafa nekk jëmm. mais du ñëpp ko gis nga ni nit jinne nekk amee jëmmam nga xam ne jëmm ji duñ ko laal nga xam ne am na waaye doo ko laal lu dul mu transféré wu transformé wu mën a transféré wu ci beneen jëmm juñ mën a laal waaye yàlla may leen ñu mën a ànd ak ngelaw li yàlla may na leen noonu la wax nekkee jëmm yoo xam ne nit ñi koy gis bariwuñ noonu lañ mën a xoolee ni xam ne cata ko jàpp noonu la ñuy gisee wax wax du ñëpp koy gis noonu lañ jindee yi amee pouvoir mën a dugg ci wax jaar ci wax ji dugg ci sa jëmm ba pare nag oola nga ñëw ñu nga dem uyu ji ñu wax loola nga jëf wax noonu lay noonu la ñuy duggee ci wax nga wax nit nit wax wax ji dugg la yàqa indi la feebar wala mu indi la gàllankoor si sa wërsëg wala mu indi la gàllankoor si sa famille wala mu indi la gàllankoor sa xel ndax wax jëmm la jëmmal la joo xam ne mënuñu koo laal waaye mën nañ koo gis ci ñi nga xam ne yàlla may na leen basira may na leen xam ñu gis donc loolu dañu ba nañ ci bàyyi xel noonu la ñuy jaaree ci téléphone des fois ñu oo la jinne yi oo la wax ak yow te yow doo xam ne jinne la oo ñu baree baree baree nga yor téléphone di communiquer ak ay nit joxante ñoom rendez-vous duñ gis duñ gis kañ joxante rendez parce que jinne yi la saay-saay si la buñ la ooyee mën na jaar téléphone bi dugg ci sa nopp bi dugg ci sa biir jëmm ji dugg ci sa xel mi moo tax téléphone dafa am waxtu yu ñu ko war a jëfandikoo ak nuñ ko war a jëfandikoo képp koy uyoo ci téléphone maa ngi joxe benn secret boo xam ne pour jinne yi mën may jàmm képp ko ci ci téléphone balaa muy wax aloo na wax bismillah ba pare soo ko wax aloo man maa leen ko jox loolu man maa leen jox secret boobu balaa ngeen di téléphone da wax bismillah ba ki ngeen di oo dégg bismillah bi ba pare ngeen soog wax allo bu kenn jëlee ci téléphone wax allo c'est tubaab yi ñoo ñu nax ñëpp ci àddina bi amul kenn ku uyoo téléphone da wax allo. aloo du uyukaayu téléphone maa ko wax man Cheikh Omar Diop du ngeen ko dégg ci kenn nag ci man la ko man ngeen ko njëkk a dégg yi te parce lu tax yàllaa ma ko xamal da ngeen secret secret jinne yi la képp ku ngeen xoo ngeen ko al ba ngeen ko bismillah ba mu dégg ko ngeen ngeen déglu communication su dee jinne dana leer ci yow bu dee rab bu dee nit dana leer ci yow loolu man maa leen ko xamal te yéen ñi uyu téléphone di uyu téléphone lu bëri deneen wax bismillah ba pare soo ko wax allo ngeen xool seen communication yi léegi ndax dana changé lii man maa leen ko wax ci téléphone ngeen man maa leen ko wax ci cekkere téléphone kon bismillah boobu ngeen di wax dafay dàq jinne yi saytaan yi jinne yi saytaan yi da leen di dàq duñ leen mën a yàqal ci téléphone duñ mën a jaar ci seen communication dugg leen des fois nga gis téléphone bi nga ool téléphone wax la benn wax sa xol bi fees jël ak seytaane nga mer ba doo mën a taw fekk seytaane boobu na oo noonu hmm. dugg na ci jaar na ci wax bi hmm. jaar ci sa nopp bi dugg ci sa jëmm ji hmm. fees la dell na nga mer ba boo bëggee seen nit ki bu ko rey fekk kooku yëgul tinul baleen xel ci loolu seytaane yi yàlla daf leen may ñu mën am pouvoir mën a soppandiku du dugg ci fu nekk côté bu nekk moo tax daleen wax bismillah képp ku nekk oo téléphone mooy numéro bu ngeen enregistré mooy numéro bu ngeen enregistré wul da leen wax bismillah ba waa ji ne moom bu dee wax allo bu ko lijjanti yow leen wax bismillah ba pare soo ko wax wii wala nga ne ko waaw nga soog ko uyu bu kenn uyooti téléphone ci allo bu kenn oowooti nit même boo ooyee nit ne ko bismillah bam na la allo nga def waaw na nga def mën na maa fi rek waaye gis nga senegal seet leen addina bi yëpp ñoo bokk ci benn communication bi nga xam ne seytaan yi ñoo ñoo ñoo occupé ñoo contrôler téléphone addina bi yëpp ñoo bokk ci di wax allo oui te loolu pourquoi pourquoi ñun ñëpp ñu bokk ñu tënk ñu nag ci allo oui allo oui est-ce la allo oui est-ce que la la ñu yàlla jàngaloon ci bu ñuy jëflante ak bu ñuy jëflante suñu ay ay mbir lan la ñu yàlla wax lépp lu ngeen di def ci bi lu ngeen di tàmbali mbir mu ngeen di tàmbali amul bismillahi rahmaani rahim mbis mu mbir mu ñàkk barke la mbir mu jaddu la mbir mu dagg la loolu ñun xamuñu ko xanaa xanaa xanaa téléphone du mbir mu ñu ko tàmbali communication yi ñuy wax ak xanaa mbir mu ñu commencé mbir moomu ñuy commencé bu amul bismillah te yàlla wax nañu lépp lu ñuy def lu amul bismillah loola du dagg la lu jaddu la lu ñàkk barke la ah ñu yor téléphone bëgg ci communiquer suñu soxla woon jëpp duñu wax bismillah nañ bàyyi xel suñu bopp nañ delluwaat suñu bopp nañ delluwaat suñu jàngale yi yéen yonente alma saa sam jàngale lii yëpp yàlla may wax na ma ma ma farat naa fi kitaab min shay'in lii ci la bokk rek bàyyiwul dara ci alquran képp kuy communiquer ti del wax bismillah moo xam dañ laa woo moo xam dangaa woote moo xam dañ laa woo moo xam danaa wax lépp luy jaar ci seytaane di jaar ci téléphone di ñëw ci yow daal dana la ci musal lii man ma leen ko wax te nañ bàyyi xel suñ njaboot yi ci seen télécommunication yii suñ téléphone yi nañu xool heure yi ñu koy utiliser téléphone dafa nekk loo xam ne dafa yàqal surtout jaamukati yàlla yi léegi mënatuñu concentré wu ci katr mënatuñu concentré wu ci barke mënatuñu concentré wu ci wirda mënatuñu concentré wu ci jokkoog yàlla parce que nit ñi léegi seen niveau dafa baax dafa wàcc jinne yi nag seen niveau dafa yëg moo waral léegi ngay gis nga nekk jaam ko ci yàlla nekk jullit nekk nit ku baax mais ngay gis mon te amoo ci solution <laughs> il faut nga delluwaat ci suñu bopp yow ngay nit yàlla ngay nit yàlla nga gis mais saa waay <laughs> mais euh, quel est problème am nañ problème am nañ problème nañ ko wax sérieusement am nañ problème moo tax ñun ñi ñuy jël di ñuy mokke di ñuy kakki kakke di ñuy mën ñu mën ñe parce que ñun ñooy ñun ñooy ñun ñooy ñun ñoo ci am pexe au moins tuuti tuuti tuuti bu ko defee ñuy tëddee sëriñ si waaw ah, naxaatekat yi sëriñ si waaw naxaatekat yi fekk seytaan yi ñooy wax loolu de pour décourager nit ñi ci sëriñ parce que xam nañ ne si sëriñ si ci la seen taaj tàngee parce que ñun ñuy faj affaire yi di leen fudd di leen dóor ñun arrangé wuñ leen moo tax fu ñu dem di yàq suñu der waaw sëriñ si naxaatekat yi sëriñ si naxaatekat yi waaye yow système mën naa am ñëpp nekk ay naxaatekat loolu mën naa nekk ñu waxante dëgg te yàlla tax am na tappalekat waaye am na ñuy wax dëgg léegi nag su ko defee ne comme ñun ñoo ci am ñun ñoo ci dese ñun kott ñoo ci ñun fajkat yi ñoo ci dese ñuy laal jinne yi ñuy yuuxu mais dootoo dem ci benn nit yàlla wala nga dem ci benn sëriñ fekk ko fa ñuy régler ay affaire di di régler jinne yi nit ñëpp découragé nañ bàyyi nañ léegi nag ñoom moo loolu moo leen may pouvoir bi loolu moo may autorité bi ñu am moom moo leen may pouvoir bi ñu am moo doole bi am léegi ku ku leen neex dugg ku leen neex détourné ku leen neex saylo ko fan yi fan yi ñu ngi toppatoo ñu ngi xew la léegi ay jigéen la ñuy gis ñuy oote ay jigéen dañ ñuy saboté dañ ñuy wan ne léegi am nañ seen pouvoir bu doy ba léegi soxlaatuñ góor ñi léegi jigéen ñi lañuy utiliser dañ ñuy mokke xalifa général yaa ngi fi di dégg ay woote ci lislaam yoo xam ne du dëgg du fen du dëgg ay fen la kenn mënu cee ŋaan ana xalifa général yi léegi kenn mënu cee ŋaan kenn kenn mënatu cee ngaan xamul tax parce que jinne yi doon wax jinne yu bon ñi ñoo dugg dugg dugg ñi léegi jinne yi léegi kenn mu yërif leen ñoom ñoo mu yërif leen bopp lu leen neex def nga yaakaar na xalifa général dañoo seen secret wala si xalifa général dañoo nekk ay xalifa ñu ngi xalifa ba de seen secret yaa ngi fi ba tey de waaye yi seytaane yi dugg nit ñi seytaane yooyu ñoo féttéerle seytaane yooyu ñoo féttéerle moo tax ay waaraate yi ngeen di wax nii dugg loolu rek lay woo ko de ay dinañ leen kii di leen menacé yi yooyu rek leen ko de da ngeen nax seen bopp de lii man maa leen ko wax man Cheikh Omar Diop leen di gën a yokk doole da ngeen di lante ñoom ci biir affaire yi ci biir lañ koy réglé waaye dañ ko réglé ci ay média ay diw sàngam bu ko bàyyiwut danañ ko lii ay diw sàngam du ko bàyyi mukk jamais bët bu set day gën a yokk ci biir ngay dugg karawaase la ñu ne ñu ne nemm yerwaat delluwaat rangé waat seen ay place lii mooy wax ci addina bi nag ñu koy Sénégal la koy seetaan golo bu jóg woote golo bu jóg woote woote yëpp ay woote seytaane lañ ñu jàng te xam diine xam leer yàlla xam leer ak bi xam nañ ne ñii di woote yëpp ay wetkat lañ woote woo yonent ay kàccikat lañ ñii oote woo diine yi ñuy oote tariqa yi créé ci tariqa jàmbur ak yoon kàcc rek fenn rek lépp mbiri saytaane la dara lu ci diine loolu dafa war a leer nit ñi ñoom nag ñoom ñoo nekk ñoom ñoo nekk représentant seytaane yi ci ci ci ci ci dëkk bi te jinne yi rek lañ yëlif nag moomuñ seen bopp de li ñuy def tayuñu ko moomuñu ko mu mënuñu ko seen yoon nekk xamuñ sax nit ñi nit ñi def balaa nga ko doon xam rek rek ñu jàppoon leen tey rek ba génnee jinne ci nekk ci ñoom ci ñoom nga xool dafay mel ni ku doon nelaw rek yeewu da ngay gis ñu ne ah man man man lu may def fii ah man lu may indi fii loolu ngay dégg nga xam ne kii nekkutoon benn bés mas nañ am benn benn benn jigéen boo xam ne teetaane yi ñoo ko jàppoon dugg ko muy fëtti fëtti seen kër juróom benni mag juróom benni grand frère am ñoo ko yanu indi ko ci kër gi mënuñu koo téye juróom benn grand frère am mën na leen teg leen ko ñu ne la kii ki boo ko tegee boo ko tegee uh, uh, ki mar détal ki kenn mënu koo tijji juróom benni góor mënuñ koo téye xale bu jànq bu jigéen jànq benn jànq boo xam ne matagul sax sëy juróom benn góor mënuñ koo téye kooku loolu nit la bi mu ñëwee ci man ma na leen teg leen ko doome xaj ji ko dugg xam naa ko saay-saay la doome xaraam ji bon ji mu ne nemm waa ji mu ne yaa ji ma téye ma ne ko téye lan jarul téye wacc ko yow doomi xaraam yi doo bàyyi doomi euh, euh, euh, kii doo bàyyi doomi jàmm mu ne ma ah ma ne ko bàyyi doomi jàmm ci laawa mu ne ma nekku ci laawa ma ne ah sa yoon nekku ci xaaral ma ñëw ba ma def li may def après ci la ko bàyyi dem mu jékki-jékki yeewu naan waaw man li mu indi fii ma ne leen voilà gis ngeen ko nii yóbbu leen ko moom bi ñuy dem ñoom ñaar ñoo ñoom ñoom ñoom ñoom juróom-benn juróom-ñaar ñoo ànd juróom-benn góor ak ak seen yaay ñoo ànd ànd ak moom dox sol seen daal dem sa jot loolu nag comme téye nga nga oote la wala ko loolu juróom-benn góor ngay jigéen mu dugg la juróom-benn góor mënuñ laa téye léegi moom bu la duggee nag kooku bu la duggee tey di la oote la yow kat moo la mën a wàññi wàññi ba nga wàññeeku. wax leen ma rek kan moo la mën a wàññi ba nga wàññeeku ay menaces ak ay titre laate do xanaa balaa booy menacé nit kay day fekk mu ne fa booy menacé nit naa ko danaa la def nangam pour mu raxal la wala ngay menacé ni wala ngay yedd nit di ko yedd pour mu bàyyi li nga li li nga koy tere day fekk moom ñi ngay yedd mu ne fa waaye ki nga xam ne moom ngay yedd ñoom moom ñu ñu ngi ko denc ki ngay yedd moom faalewu la toppatawu la soo ko waxee dara da ngay gis mu defal la pur gën a pur ñëwaat xam ngeen ne moos kilifa diine yi ñun ñu am fii ñun ñii ànd ak suñu sago yi kuñ ci oo na la bàyyil nangam luñ la ko waxaat eh, dañuy te yàlla tax te yàlla tax ñu ñun ñëpp ñu ànd ak suñu sago yi laa wax de amul ci ñun kenn kili benn kilifa diine bu lay oo na la bàyyil nangam di la ko waxaat amul aywa léegi nag ñun léegi dañoo faale si faale ñu waaraate yi faale wuñ kilifa yi nañ bàyyi xel loolu nañ changé suñ doxalin nañ tee suñ kuris yi tañ bàyyi xel na seytaane yaa ngi ëpp doole ci àddina bi ñu ëpp doole si ñun ñoo responsabilité nañ ci ba nañ bàyyi xel ci téléphone yi nañ bàyyi xel ci kursi wirdekat yi nañ bàyyi ci salaatu fàtte yi nañ ko gën a yokk salaatu yi mooy moo yàq mooy yàq seen pouvoir seen doole te ñàkk concentration bi ñuy def nag ci yàllu jàng salaatu fàtte moo waral léegi ñuy capp-cappi di repp cappi di tànqal kursi yi da nga koy jàngi di ko tëfi ni ko am rab mu ne <laughs> kursi tëf le ko dana ma sëriñ ngay jàng ni maa la gën a mokkal maa la ko a xam waaye bu ma jëlee sama yeneen bagage ba ma ne ko pàcc def na ma yaa may lakk bàyyi nga yeneen ma ne ko danaa da bàyyi diw wala ma rey nga yaakaar la te ayati kursi da daan dàq jinne hmm. léegi ayati kursi boo koy jàng nit ko am rab moom day gën a am doole nga xam nga foog ne yow li ngay li nga yeewoo ñoom yeewoowuñ noonu am na ci jinne yoo xam ne dañoo gën yàlla mokkal alxuraan di ko jàng ba mel ni yow bañ la koo dàqaa jàng jinne jooju bu nekkee sa saay loo ko mën a lew loolu boo amul xam-xam nga ci dara bu dee ayatul kursi kott nga yaakaar wala ruqiya rek nga yaakaar bu jàng ko jàng ba léegi nga jàng jinne joo xam yaa ngi ko jàng moo la ko gën a mokkal foo jëm mu tax il faut ñu xam liñ nekk lan la il faut ñu xam jamono bi ñu nekk jamono ban la il faut ñu xam ñi ñuy jëflanteel ñan lañ loolu il faut ñu xam ko il faut ñu bàyyi xel liñ jamono bi ñu nekk te pas du jamono bu nekk ba de jamono bi fi mag ñi nekk kilifa yi nekk nga xam ne ñoo nga xam léegi nit ñi rek la léegi loolu amatul de léegi kenn ku ci nekk say njaboot ngay toppatoo njabooti jàmbur sa yoon newu ci du ñëpp nag waaye am na ñenn ñenn ñoo xam ne léegi seen yoon newu ci njabooti jàmbur yi kon nañ bàqee loolu loolu laay wax loolu wax ne live tey bi loolu lañ koy def pour fàttali nit ñi ne leen nañ bàyyi xel jinne yi nañ bàyyi xel jamono bii nañ bàyyi xel téléphone yi nañ bàyyi xel wirdi yi nañ bàyyi xel li nga xam ne moom mooy àddina bi nekk tey léegi maanaam ñi nga xam ne dañoo ne weddi lislaam dañoo dem signé wante parti xam nañ ne message yi am yi mën a véhiculer yi ñu mën a jàllale liñ mën a réaliser si seen ay projet jinne yi rek leen ci mën a dimbale pour mu sotti te duñ ci sonn moo tax ñu dem signé wante ay pacte ah liñ ñu nag ñun julli ñu ne fi wiir rekkat yi ne fi am na si julli jox nañ seen bopp jinne yi bu yàgg ay jullit ñu jox seen bopp jinne yi moom bu yàgg te yëguñ ko am na ñoo xam ne ñoo ko tey sax kon dañ bàyyi xel waxtu wuñ nekk dañ bàyyi xel ci waxtu wi ñu nekk ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax di leen euh, di leen wax ne ngeen bàyyi xel ci li ñu leen wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërë ngeen